ملكت بفضل الله ما كان يستهاب وسيري له من قبل بالمنتقى انتهى توبا بلال لا سانت دي خلافام تبا فجاك اك جمعه ngay liqaam Touba Belal la sant ci fa jàkka ak jumaa ña ngay liqaam ci xaama taf sa sin dëkku tam xarit ci la ko sañ ci def ko muy dëkku murit yi ndox mi yol di walangaan mbalka yi fees robinet yaa ngay walangaan tey nag mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen fas yéene waxtaane benn tomb bu am solo bu xaw a yitteel ci dunduk Cheikh Abdoul Ahad muy dëkk bu ñu wax tubaab Belal te dana leer ci kanam ndax day day dëkk boo xam ne dafa am wàccuwaay ci sëñ bi am fu mu toll sëñ bi té loolu inshallah allah dana gëna leer ay ñoo ngi ci pak bu barkel pak bu tedd di Touba belam di pak bo xamni Cheikh abdul Ahad ñettelu khalifa Cheikhul Khadim moko tanalon bopam ci 1969 ci xarit wéru tam xarit sanjiko ngir mu nek rek bërëb boo xam ni. bërëb bu ñuy jaamoo yàlla la ak di liggéey sabab soos rek moo taxoon mu sancoon ko. bërëb bi mooy néeg bi nga xam ne moom la sëriñ Moustapha Bassirou defaroon sëriñ bi su ma saa yendoo ci nit ñi ba ngoon ba bëgg wéet fii la baaxoo woon a wéet ba ci guddi giñ ko mujj a gisee itam fii la ko ñëwoon néeg bi fii la nekkoon fii ma taxaw nii am mbaara fi nekk daana ci faral di nekk. ci guddi gi muy néeg boo xam sëñ Moussa Bassirou moo ko defan mu sanc ko ci at moom yi daanaka la ko sanc biñ ko mujjee gisit fii la ñëw bi mu fi jógee Touba la dellu xam ngeen Cheikh Abdoul Ahad sanc na ay dëkk yu bare bari bi mu amee ñaa fukki at ak juróom-ñett rek 18 ans la njëkk a fu ñu wax euh, kàdd balo ji euh, moom itam sanc na ngelaw ngel ci wetu Colobane sanc na dëkk ñu wax Baden Ñaan nekk diggante Kajoor ak Bawol 1936 mu sañc fa ñuy wax Kàbbu ba tey te booba mi ngi am ñaar fukki at ak ñett sancaat na fu ñuy wax Mbalaan Jang ca xaw Ture Daaru Ja ba ci 1944 mu sanc Daaru Salaam Burki Barka sancoon na fu ñuy wax Madiane euh, ci 1961 loolu yëpp dana leer waaye nag belal lu tax ñu tànn ko mooy dafa spécial dafa am lu muy wundu dafa am lu muy junj dafa mel ne dëkk yi ma leen yi ma léegi ak yeneen dëkk yoo xam ne sëñ ba sanc na fa yooyu yëpp sëñ bi bi mu sancee beral dalee ne folli dalee ne man sooxal yem ci beral belal mooy dëkk boo xam ni sëñ bi moom rek la sañc ci xilaafaam bi mu doonee sëñ Tuubaa Tuubaa belal la sanc ci xilaafaam tabax fa jàkk ak jumaa ña ngay liqaam sëñ Abdou Lahad waxal na boo xamante bi ne beral dama koo sanc ngir liggéey ak jaamu yàlla ak yërëm mbindeef yi sabab soos rek moo taxoon mu sancoon ko donte amoon na ay barab yu bare bari yoo xam ne jiitu na ko lu nekk lu jiitu muy nekk xalifa waaye barab bii bu ràññiku la ba buñ ne borom beral rek mën nañ ni daal moo gën a siiw ci ay barabam mm-hmm. waaye itam lenn rek moo taxoon mu sanc ko muy jaamu yàlla ak di fi liggéeyal sëriñ bu mag bi an anhu mi nga xam ni euh, léppam moo ne nee na lim sant boromam mooy jug gim jug rek itam jëpp jëm ci sëriñ bi ci di ko xeñt ak di ko liggéeyal euh, bi mu ko sampee itam ay bokki taalibe yu bare bare andi na leen fi njabootu boppam ñoo xam ni ñi mu ngi leen jële mbaakool andi ñi kajoor fenn fu ci ne rek mu andi leen fi sampal leen fi ay bërëb sampal leen fi ay kër waaye ci lu sorewul dara itam mu defa daari tarbiya ja tudde ko Touba Mouride di fa tarbiya dongo yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel muy liggéey bu am am solo boo xam ni mooy liggéey defar doomu aadama ba nga xam ni dana mën a jariñ boppam waaye dana mën a jariñ société bi nga xam ni ci la nekk di ko dund mm-hmm. mel na ni sëñ Ablaat loolu moo ëppoon ci ab liggéeyam kon bërëb bi ci fànn googu la mën nañ ni bërëb la boo xam ne dañ fi daan tàggate ay nit ba nga xam ne suñ delluwaatee jaxasoog waa société bi danañ mën a soppi société bi waaye société bi duñ leen mën a soppi. mu liggéeyal fi sëriñ bi liggéey bu mag nag wante ñëw googu am na fi ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan juróom yooyu woo na ci donga yi xamal ne leen seenub liggéey man na te lu ngeen doon wut ci liggéey bi am ngeen ci téeméeram ma ko tàmbalee ci ne daaw jéeg. bay ngeen am téeméeri million daaw ngeen bay am juróom-benn fukki million ren ngeen bay am fukki million ak ñaar mu mel ni bu at yëpp melan ni mu njëkk ma seen ñett téeméeri million nga fi lépp ma defal leen ko ci liggéeyam sëñ Touba xam ne lu ngeen doon wut lu ne am ngeen ci téeméeram daar cee teg ni seen liggéeyee ngoogu nag man baax bi tooy nag baax bi tooyul bu ma kenn laajate yaakaar naa lam ca teg motaatul eh, bis bi dellusiwaatul mu wàcc kon wàcce na donga wacce wane ne wacce na ndax daf ne sant nan yalla baax way yene to war ngeen sant yalla baax ndax lu ngeen doon wut lu ne am ngeen ci téeméeram lool la wax do ngay tegaatu ci bis be del yawi ko ay fi nak ci bërëb bi mom fi la baax wona fatu ba bis biñ ko mu gis fi lañ ko bi fi fi waté la dem Touba. fi ibla Lahad waxal na baam xam beral dama ko sant ngir liggéey ak tiamu yalla ak yërëm minde fi lool mom fi ibla Lahad mako waxal boxam wax ne liggéey ak jaamu yàlla laa xam ma bëgg suuf soo xam ni danaa fa man di def loolu te mu doon fu jege Tuubaa ngir man fu ma nekk nit ñi fekkoon ma fa te damaa am yërmaane ci nit ñi kon bi muy tànn beral bàyyiwaale na xel yërëm mbindéef fi ndax booba mooy xalif sëñ Tuubaa wóor ne ko fu mu nekk lu mu sori sori nit ñi dañu ko fekk waaye nag mu tànn foo xam dafay jege tubaa ngir yërëm nit ñi bi mu waxee loolu sengoor boobu Senghor moo fi nekk nekk président Senghor wan ko ñaari gott benn ba ma nga nekk ci junóo bi gasaan gasaan ci wàllu ci saalum la bokk bi ci des mi ngi nekk ci ndeyjooru gasaan ci saalum beneen suuf si ko Senghor tànn la tamit mooy moo nekk ci càmmooñu Darma dëkk bu ñuy wax Darma ci yoonu Jolof nga xam ne foofu moo xaajale woon diggante jolof ak bawol Senghor wan ko ñaari gott yooyu sëñ bi tànn bii mujj nga xam ne moo nekk ci boor yi eh, darma ngir jege gi mu gën a jege Touba. pàkk bu barkeel la boo xam ni mbubb mi sëñ Abdou Lahad soloon doon ci liggéeyal sëriñ Touba mel na ne xamuñ fan la summi mbubb ma waaye ci biir néeg bi ci lañ mujj a gisee mbubb moom mu doon liggéeyal sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mhm. ay bisam lu ëpp ci ay bis nga xam ne moom la mujj ci jamono ci kees gi ci la ko ci la ko mujj nga xam ne néeg boobu lal boobu ngeen gis jan lool mhm. fi la wàcceel ab liggéey loolu daal mooy cosaanu pàkk bi ñu xam ne itam bi mu ko sancee itam andi na fi ay kàngam mhm. andi na fi ñoo xam ne ñu ràññiku lañ ku ci mel ni sëñ Moussa Alima Guèye mi nga xam ni moom ci bind bindikati sëriñ bi la sëñ bi bi bindam sëñ bu mag bi laa jubla wax sëñ mu saa Alima wax nañu sax moom mujj bindal sëñ bu mag bi radiyallahu anhu bokkoon ci ñi sëñ bi tànnoon di leen liggéeyloo ci wàllu mbind sëñ Abdou bi mu sancee dëkk bi da jël andi ko fi mu féete woo fi ku mel ni sëñ Asasi moom nga xam ni itam sëriñ Fadlu moo ko yóbbuwoon gaje ji mu yar ak njabootam di leen jàngal alxuraan gannaaw ba sëñ Fadlu toxal ko yóbbu ko ndindi sëñ Abdou bi mu sancee pàkk bi itam daa jël sëriñ Asa moom mi andi ko ci barab bi mu ne fi di jàngale alquranul karim di yar ci diine waaye mu tànn ko mu nekk imaami dëkk bi nga xam ne diirub lim fi ne moom sëriñ Ansa moom moo daan taxawee lu aju ci wàllum euh, waxtu yu juróom fii ci dëkk bi muy lu am am am am solo euh, jàkka joo ji ngeen gis ci muy jàkka ju jëkk itam jàkka ju am solo la joo xam ne bi mu àggee sëñ Abdou Khadir moo ko ñëw li ñuy wax immigration bi sëñ Abdou Khadir moo ko def daanaka waa moom moo moo intégré jàkka ju ndaw jooju jàkki ko kiyaas boobu mm-hmm. muy jàkka joo xam ni digg nañ ci lu rëy rëy xam nañ ku fa julli ñaar rakka euh, ñu damm ñu jéggale say bàkkaar waaye ku fa saxal julli juróom ñu damm sa xalim ak bàkkaar loolu itam ci ci ci ci ngënee li dëkk bi la bokk mm-hmm. kon daal dëkk la boo xam ne euh, lu fi waay sàkku warees naa cee mën am yaakaar rawatina nag bis bi ngeen fi ñëw sanca di mbir ma ma fas tàggoo deful lu ma fas sëriñ bi yàlla na ni ca xéwal gi xëpp bela xéewal gi mooy suturaal dëkkin wu jag wi nu am dëkkum gërëm bi nu am kuy jóg di dem gorewul as gor dafay sàmm ngor koo gis demee la mu nar tuubaa belal ku mu doo màng bay niru pël sëriñ bi daa mas a wax ab dëkk mooy ami sa quartier la mooy la mu wax tuubaay belal toogal maam Cheikh Abdou bi mu fii ne dafa jàppoon ni tuubaa belal du ab dëkk waaye ab quartier la bi ci biir tuubaa moo tax bi mu fi ne nangu fee def ay armeel mhm. nangu fee taxawal itam jumaa ñu fi julli ajjuma ginnaaw bi Touba ubbi ko yaatu ba ci jamono sëñ Saliou nga xam ne jumaa yi bari na mhm. ba ci jamono ju mujj yi ci la ginnaaw ginaaw jumaa yi ubbeeku na mhm. ñu doog fee tàmbali jumaa yi di biir diirub li sëñ Abdou ne moom daaw ñu fi taxawal uh, julli ajjuma mhm. ngir dafa jàpp ni Euh, ab quartier la rek ci biir Touba waaye du ab du ab dëkk yoon wi moo gudd rek waaye tali yeeg marché yeeg yooyu yëpp sëñ Abdou ko fendi ak fajukaay lépp sëñ Abdou fexe woon na ak courant ak téléphone yëpp fexe woon na bi mu fi ne ba lépp egsi woon na fi ci egsi woon na fi ay jamono moom loolu moom moo ko fi indi ay réalisation la ginnaaw bi nag ci at yu mujj yi yeesalaat nañ tali bi ngir yàqu-yàqu ya gisoon nañ ko waaye yeesalaat waaye bi mu fi ne daal lépp lépp mate woon na ko wax dëgg yàlla bi diirëb lim fi mujj muy uh, fan yu mujj yooyu bi mu ñëwee xam nañ waxtaanu bi mujj waxtaan ci julli it gi ci tàggatoo la ko def wane ni àdduna ndewuñ fi di sax ngir sun borom bi mu ko bindee àdduna si day mel ni kaaba gi rek la fi malaaka yi ñëwoon def te ba tuufaanu Seydina Nuux ma ñëwee da ko yóbbu ba fa ko soob gannaaw ba Seydina Ibrahima ñoom ñoo fi ñëw rëddaat kaaba gi mu mel ni wane ni ci waxtaan woowu adduna moom kon amul solo ngir kaaba gi Seydina Ibrahima ñoom ñoo ko fi def la ne lu fi waaye soxlaa itam ci ndox mi ak ci suuf si rek nga koy jëlee ngir mën a def te lenn lu ci ne mu wane ni kër kër moom moo koy moo koy maye mm-hmm. wane itam ci jullit it googu niin Euh, ràpp ak yeneen ya ca aju yëpp nga xam ne loo loo sol balaa yàgg mu ràpp wane ni jullik iid gi rek ku sumul mbi mi nga sol balaa tabaski doo fi mën a andi mhm. loo lekk balaa yàgg mu rees yooyu yëpp day wax yoo xam ne waxi tàggatoo la mhm. wax baa gi sax ni jullikaay bi amul kenn koo xam ne ka gis baay ka jur sa baay ka jur baayam te nga ci sa bët mhm. waxtaanu tàggatoo la woon moo tax bi mu ñëwee fii mu doon tàggatoo ak dongo yi tuubaa belal la yendu boobee jant bam nee jalañ dëkk ba ñëpp a sant ñépp nu yoo siyaare dollee sant ak melokaan wa mbàkke mel nit jant sax na belal ñaar fukki fan yu topp juróomi fan la dan ci waale ñépp gisante naa gone yu ndaw yamu yoroon na manti koog ñoom boole koog la dan ci leen bam fa amee juróomi fan la woolu donga ya won ca ya maa ko wóolu dal di wax ñoom fa mu def seeni liggéey ci sëñ bu mag bi ñooña yuuxu dal jooy. am na fi ñaar fukki fan ak juróom ñaar fukki fan juróom yooyu woo na ci donga yi xamal ne leen seenub liggéey man na lu ngeen doon wut ci liggéey bi am ngeen ci téeméeram ma ko tàmbalee ci ne daaw jéeg bay ngeen am téeméeri million daaw ngeen bay am juróom benn fukki million ren ngeen bay am fukki million ak ñaar. mu mel ni baat yëpp melan ni bu njëkk ma seen ñetti téeméeri million nga fi lépp ma defal leen ko ci liggéeyam sëñ Touba di leen ci téeméeram ni seenub liggéeyee ngoogu nag man baax bi tooy naag baax bi tooyul ba ma kenn laajate dongo yi nga xam ne ñoo doon Touba Mouride da leen woo ba ñëw mu sant leen xamal liggéey bi ñu doon ànd ak sëñ Touba moom di ko liggéeyal sëñ Touba dara sànku ci fi mu jëf seeni jëf itam lépp delluwaat na ko ci sëñ Touba. bégal leen ba nga xam ne keroog xaal yi kawe war na lool. ak it daayira yu bari itam gis nañ ko nga xam ne amul feeñalul benn luy niru ak mettit wala euh, nekk ci ak tàggoo. ci wàllu yaram wala wala yu ni demee. wéy ci liggéeyal sëñ bu mag bi saa ne daayira yi ñëw di bawoo ci wet gu ne ba ca di béer jamu gisee ak daayira ya fukki fan ak ñett diggu tabaski wa ba mu xëyee la dal di ubbi woote. boole ca mbégte ndeke nar na joote cawarte gaa njàmbaar ga ñoo ko làqal lam bëgg a def ba kenn amul ñaawu xel di jaxasoo gan ña ba def leen mbégte boobale bis deful bu dee fi fàtte bam salma léegee la wax ak ñoom junji leen daay dem barab suba la wax tàggu na leen xam Cheikh Murtada sax day wax ni sëñ bi dañoo nax ba dem rek waaye bu fekkee feeñaloon na lenn luy niru ak tawat wala ak tëdd rek danañ am yoo xam danañ ko jëfandikoo te buñ ko jëfandikoo kon ko kon du dem kon du dem ndax moom fi mu féete eh, kenn dañu faa mën féete maanaam wax waxaale la jëf jëfaale li ko sëñ Abdou Mouhaïminou Diakhaté doon leerale mm-hmm. loolu sëñ Abdou kenn fekk ko ci mm-hmm. moo tax fii ci barab bi daanaka Euh, daayira yu bari euh, ci bis boobu mu war ñëw am na ñoo xam ne sax tàggoo naa ñoom bañ delluwaat Touba bañ delluwaat Touba loolu lépp rek ci naxtaan ngir dara lépp nekk ci ak dal mm-hmm. nga xam dal nga xam ne kenn daal euh, xalaatul dara waaw bi mu wàccee liggéey itam fii sëñ Abibu ak sëñ Soxay bi ñëw nañ fi ci guddi gi ak sëñ Moustapha Saliou mm-hmm. ñoom ñëw nañ ci ci ci guddi gi teewe teewe xew-xew boobu nekk ci waajtaay gu ñu dem ngir boobu xëy na ñoo ko gën a jege ci fànn googu mm-hmm. guddik di béer ci yàlla lii di joote seex mustapha basiiru néeg bam fa defoon nee ca googa guddi foofa la fanaan nee nañ keroog sëriñ soxay bu ñëw na fa ca guddi moog sëriñ abi bu ànd fa mbir maa yéeme ndax lu kenn foogul xew na keroog wallahi mbir ya tuutul bët set deel si nañu yent tuubaa xibaar ba siiwul ngir ragal duggóobaa ndegam sëriñ abdulahat moo wuute ak melokaanoo mbakke lii di jote te yàlla njeeg borom belal moo làqu ku yabu waaj te xam ni dun bee yàqu guddi ga seex abdu fanaan fee tuubaa bawoo belal mooy ca guddig dugoo baa ñii yëg ñii di déggandeem te wóorul ñu ni te tax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell ci nattable ba ca bitim réew ñépp ngi nattable ba ñu yëngoo yuuxu ya dal di maase kenn lawul ñépp dañoo fanaansi ci benn waxtu nee ñu lañ ko waajal Seex Abdu Xaadir Mbakke moo ko ñaanal kaamili alxuraan yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw futaaru kaamili alxuraan yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw futaaru malaktu bi fadlillahi ma kaana yustahaab بالمنتقى انتهى